yàlla dafa muur ay bëtam da ngeen ko tàcc bu baax a baax ku ko ci tàccu rek yàlla boo yeewu suba da ngeen ko tàcc sauf policier yi parce que policier yi du tàcc mais yéen ñëpp laa wax ku ko tàccuwul rek boo yeewoo da ngay apollo laa wax ah, ko sax tax ma Pauau. Thank you. kon nan mu muñ dina gis ma ba waali dina la woyal ba mu neex ma ma def fa soleil sa jugu lir ko ba mu neex ma ma def fa débat dama jom bëri fa yi da kenn yàggagu la doo doo fen doo tas ma ku baax la la xame sama baay ji neexul nga ba muy def lu baax bu bëri xewul tasul fayul te ñibbiwul te jëndiwu ko nga juddu nag ni nga juddu mage nag ni nga magi bëri fayda kenn yaba ku la yaay jaaga dalaa gërëm papa coon dalaa gërëm say famille dalaa gërëm kenn dootu ndayam gërëm cee biir kër ja kenn du ko yaram kenn ma kenn ma waxtaan ak kenn ma waxtaan ak kenn ma waxtaan ak kenn ma waxtaan ak kenn ma waxtaan ak kenn ma waxtaan ak kenn yow yaa dégg dëggal Saliu, tá tirando Saliu. Baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca. Muna na. Oy, tá tirando Saliu way. Saliu. Yalla na nga gudd fan. Yalla na nga wër, yalla na nga am jam. Kontaan naa torop dégg. Kontaan naa ba ci karamu yalla. Billahi. Sa son barki Sayyiduna Muhammad bama ko déggé ci ara Jakarta bi damay daw. Suma duggé moto dama naan ko tegal ma waale boo ma tegalul waaye lan daal a ngi jooya ah Mbaye ngay jooy xaale ngay jooy Cheikh Anta ngay jooy waaye ji nag sàmm ndox ngay jooy ah non non il faut pas faire ça. sa poche poche droite bi jot naa am ay koppar sa yaay mi ngi fi na ci bàyyi xel dégg nga waa waana yaayam. kan moo ko jël si ana yaayam yaayam la àndal amadi wàcce ko ndax mi ngi yàq soirée bi ñëpp ngay jooy ah waa Ramadaan ñëpp a ngay jooy de ah xoolal xoolal waa Ramadaan xoolal xoolal ñee ñu ngi ah, ah. moo yéen xamu nañ yàlla du nit dara muy xam ngeen benn affaire